te yàlla soxna Aysa julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu yéen waa plateau bi euh, Kajoor ak Pape di siyaare mboolem équipe waa 7TV ak képp koo xamante ne rek da ngay seetaan 7TV rawatina émission bi nga xam ni mooy Allô Sénégal ñu leen di jaajëfal ñaan suñu borom defal leen jàmm nawet bii ñu dugg ñu dugg ci ci bismillaahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla def ci réew mi jàmm di siyaare soxna Xadi Seen sama waajur nekk ci Touba waaye di bàyyi xel émission bi waxtu bu nekk di siyaare mbooleem koo xam ne soppee Mouhamadou Lamine Fawzeyni borom secret yi la maa ngi lay jox sama loxo. macha allah dalal ak jàmm am nañu yaakaar ni que julli nga ci jàmm ak salaam ñu ngi lay déwénati bu baax baax ah tey secret yi lan la ndax yaa nga fi joxe woon avant tabaski bi moom ci li nga xamante ni moo di ay. ay ay ngëneelu yu bari ci xar bi mhm. vraiment euh, nit ñi apprécier nañ ko bu baax a baax tey yan secret nga ñuy nga ñuy dénk waaw waaw kay xam nga xam-xam moom loolu lay jariñ xam-xam xamle bu defee nit ñi jëfandikoo nit ku nekk rek li nga am loolu ngay maye te ñun xam-xam rek bi ñëwee jamono ba léegi mm. mooy sunu yëngu mooy sunu dal ci la ñuy yendu ci lañuy ñuy fanaan euh, te ku ku may nit xam-xam mu jëfandikoo ko gis ci résultat du wàññi dara ci sa xam-xam te dim ci am tiyaaba kon ku ci jëfandikoo ci secret yi ni joxe woon ci tabaski bi rek nag ñu ñaanal. macha allah te yàlla ñu yàlla boole yoon bi ñun ñëpp nag. Euh, léegi nag dafa am lu nit ñiy jàmbat ma indi ko luy ume luy ume nit ki mën nay def euh, lu koy um. di jàmbat boppam fekk moom li li ko yàqal moom moo koy defar boppam loolu leen indi ak maanaam nawet bi bu jubsee tawat day bari bari ñoom bu ñu yoree ay àndandoo day yëngu hmm. waaw feebar yi di bari jàngoro yi di bari ndax euh, nawet day ànd ay ay ay léeg balaa yàlla na ci yàlla musal léeg-léeg mu ànd ak tawat léeg mu ànd ak ay yu bari hmm. ndax ñun ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu ñaan ñi ñuy woo jamono ji dina jàng dina wax ay malade yi na am euh, bokkut ak bu dul nawet ñu bari dañuy tawat yàlla yàlla yëkkati. léegi nag dinaa leen jox secret yoo xamante ne képp ko tawat te xamoo tawatu lan la boo ko defee ni ma ko waxee incha allah di ma woowaat ni ma tere na. Euh, ñu njëkkee ci li nga xam ne day ume dafa am fukki mbir ak juróom yoo xamante ne ku koy def ku ci def benn rek moom yaa um sa bopp. bu fekkee kuy am benn nga boo ko defutoon yàlla mën na laa ngay am fukk bu fekkee kuy am fukk soo ko defutoon yàlla mën na laa def ngay am ñaar fukk. muy la te nit ñi dañ koy def bi ci njëkk mooy taxaw di sol tubéy waaw jëlee leen fu yër ni képp koo koy def yaa ngi um sa bopp te daanaka xaaju gën wàll nit ñi dañ koy def booy sol tubay da ngaa war a egg suuf. sol taxaw bari nga ci ay morom mais ñàkk xam. <laughs> waaye day umee. ma féete gannaaw nii rek beneen bi ci topp muy taxaw di takk gàllaaj. ok. ngay takk téere wala ngay takk ndomba booy takk gàllaaj rawatina mu jóge ci alxuraan danga koy war warmaal toog ba takk ko ba pare. Mm. waaw bii nag moo ci ëpp muy taxaw di naan ku koy def na ko bàyyi day umee taxaw di naan. mag ñi bu musaan di naan dañuy toog boobu bu ñuy lekk wormaal li ñuy na ba pare doo ko taal. waaw ëppoo sa mbaxane boo tàngee sa ñaq delluwaat ci sa yaram day umé bu dee jigéen dindi musóoram tas ko. di ko ëppoo. ñaqam delluwaat ci yaramam loolu day umé su say daal di ci toog ku koy def na ko bàyyi am na ñu koy def soxna Isa loolu day umé waaw. lekkaale sobe ku koy def na ko bàyyi day ume lekkaale sobe mooy nga tëdd ak sa soxna xëy laata ngay ndékki laataa ngay sangu ngay ndékki wala ngay lekk dara te sanguwoo farata wala bu dee jigéen mu tëdd ak jëkkëram xëy xiif tijji dara ci frigo bi di ko lekk te sangoogul farata loolu waaw loolu tamit day ume hmm. jànni mag moom it ku koy def na ko bàyyi day ume waaw dugg ci néeg bu lëndëm te taaloo làmp ba mu leer ku koy def na ko bàyyi moom it day ume suñ sooy moo ko dajale waaw tëddi tëddi ci lal lal bi xajam nga di ko fëgg ak moso waaw am na ñu koy def rawatina célibataire yi <laughs> ab lal bu fekkee daa xajam na nga koy laal li fëgg ko doo koo laal waaye waru ko fëgg ak moso ku koy def na ko bàyyi day ume waaw sol ay sër mu xotteeku nga di ko ñaw ci sa kaw yow yaa ngi ko sol ba pare di ko ñaw ku koy defit na ko bàyyi day umee naajee yeewu waxtu woo déggee asalaatu xayrun min naw mi mu ngi séddale wërsëg yi moo tax sunu borom ni bal yaddaahu mabsuusataani yunfiqu kayfa yashaa ñun war nañoo am dara de. Ah, de. waaw bu ñuy julli laay gis nga malaaka yi sedd la wërsëg yi. Mm. waxtu woowu la ñuy la génn yàlla dani man suñu borom bu noddee fajar damay wàcce ci asamaan si gën a suufee bal yaddaahu mabbu suuf sataan yi duy sama ñaari loxo ba mu fees yàkkamti ko ma ñaan ba ma may la. Mm-hmm. kon bu ngeen xëyee ngeen di ñaan ndax waxtu woowu ci leen ci yàlla yi njëkkante di ñaan fu ne boo gisee tubaab yi bari wërsëg maa ngi gis tubaab bu biddanti ñoom waaw ñoom daanaka duñu biddanti waaw Sénégal la ngay gis koo xamante ne tuuti lay am tàmbalee fay ñaari employé rek moom jàpp na ni balaa yeewu patron iner lay yeewu waaw tas yaakaari gone maanaam nga tukki woon xale yi di la gàttandu yaakaar ne da leen indil dara te indiloo leen dara ñu dem toogaat loolu day ume Mm. ku koy def na ko bàyyi tas yaakaar sax moo baaxul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku tas yaakaar ku la yaakaar yàlla tas sa yaakaar waaw rawatina nag gone ndax gone daa amul bakkaar nga lekk ci nga lekk ci ndab nga lekk ba suur ñu sotti la raxasu nga raxasu fa nga doon lekkee day ume wala nga yëg waaw wala nga yëkkati bool bi fa bool ba tegu woon nga teg fa raxasu ma raxasu loolu tamit mag ñi daan nañ ko moytu day umee kon yooyu yëpp gaa yi ñu ngi koy def ku koy def te xamoo ko woon na nga ko bàyyi xam ni yooyu day ume beneen bi ci topp muy lu jëm ci wàllu tawat ñaar laa ciy maye. yont yàlla ayóba tawatoon na tawat joo xam ni wax na ni bi ko tawat ji daaneel seytaanale woon man iblis moo ko moo ko sol ngelaw moom boroom wërsëg la woon waaye tawatam jooju da cee fajoo fajoo fajoo ba doon kundóol ba amatul dara te li muy faj bis bu ne day gën a kawe day gën a yokk mujj gi yaram bi di nëb sax yi di juddoo ci yaram bi mujj gi nag mu bàyyoo faju xam ne lii lu ma yàlla teg la naa ko bàyyi ak yàlla moo tax sëñ Musaa Ka naan seetal ma yeneen ba ñu naan ayooba sax yaaka daan xëccoo di wat ni koo ba te teewu koo sant di wax alhamdu moo tax ba yàlla naa ko neex ma abdu tawat bu metti la tawatoon lanbiyaay sóotu lanbiyaay juróom-ñett fukki aaya ak ñett ma nga tàmbalee wa ayyooba sax la tàmbalee suñu borom lay wax ak moom wa ayyooba isnaadee rabbahu ani masaniya durra wa anta arhamur rahimin fastajabnaa lahu fa kasafnaa maa bihi min durri wa aataynaahu ahlahu wa mislahu maahum rahmatan min wa sikri lil haamidin guddul nga bind ko juróom-ñaari yoon nga def ko saafara ci tawat mu tegale juróom ñaari fan di ci sangu ak ak di ci naan tawat ji lu mu tar tar sunu borom dana ko teggi ndax loolu moo faj tawatu yonent yàlla ayoob yi nga xam ne daa tëwoon a deñ loolu nag képp ku am ku tawat soo ko defee mu jaaxal la lu tawat gi métti métti sunu borom dana ko teggi na mu ko teggee woon ci yonent yàlla ayooba ñu jeexal ci beneen bi ci topp muy falaxi ak naasi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na amul lu mu mënta saafara moom ci boppam dañ koo njabar moom muhammad alay salaatu wasalaam moo tax suñu borom wàcce falax ak naas yi loolu teggee ko noo bind aaya boo bind bu fekkee da bind xul a'uuzu bi rabbil falax aaya boo bind da ngay bind yàllaahu yàllaahu yàllaahu comme ça boo ne xul a'uuzu bi rabbil falax yàllaahu yàllaahu yàllaahu min sharri maa xalaqa yàllaahu yàllaahu yàllaahu wa min ba saar yu jeex nga ñëw ci xul a'uuzu bi rabbil naas boo nee xulaa anzur bi aaya nga bind yaa muhammadu yaa muhammadu yaa muhammadu xulaa anzur bi naas nga bindaat maaliki naasi bindaat yaa muhammadu yaa muhammadu yaa muhammadu ilaahi naasi bindaat yaa muhammadu yaa muhammadu yaa muhammadu ba saar jeex nga boole loolu def ko saafara ñetti fan nga sangu ci naan ci tawat yépp lay lay saafara mhm. te sunu borom dina la musal ci juróom-ñaar fukki junni balaa jar na sax dara bañ laa dal nga def ko defal ko sax njaboot ndax suñu borom dalay fegal juróom-ñaar fukki junni balaa kon ñi nga xam ni danoo tawat eh, maa leen di jox eh, secret yooyu. jërëjëf ak ak ak yi nga xam ne day umee ñu moytu ko ku ci amul ay leeral nga woo ñu ci 78 530 69 81 78 530 69 81 ok. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax am na solo soit ngeen bokk ci numéro ah, ngeen delluwaat ci page Facebook bi seetaanaat partie boobu Pape temps bi jeex na. dañuy dem jëli le flash d'information il reste juste trois minutes merci beaucoup ba mercredi prochain incha allah. incha allah jërëjëf Pape merci beaucoup. ok d'accord Kajoor merci à vous merci à nos invités merci beaucoup Fawzeyni ci secret yi. Euh, Weuz ak Mouhamed ñu nekk ci régie bi merci beaucoup Babacar Khady ci suuf ci technique bi aussi ñu ngi leen di jaajëfal merci à vous rendez-vous demain 11h ngeen ànd ak Maria ak Dira ci li nga xamante ni moo di la mi-journée l'avant-première. actualité bi dañ koy fay gën a yaatal ak seen ay gan donc ngeen xaar ko bu leen ko kenn nettali ñun ñu ngi leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah jaa ngeen jëf